beneen bi bi nga xam ne ci lay daanelee mooy bi ma déggloo discours bi dégglu naa discoursu docteur ba mu jeex waaye dafa am euh, menn mbir moo xam ne fekk mi ngi woy di ko wax yi muy woote nii di jàmm du am mooy téere bi aw nit ñoo jug jukki ci lu leen neex pour diaboliser kook ñeneen ñi loolu maa ngi wax ci sama kàddu ci kaw ne c'est pas vrai du dëgg téere bi amul kenn ku ci génne dara ngir jaxase la kenn mais téere bi yaa ci def ay tooñ ak i sos ak i saaga xanaa tudd naa ay mbir tooñ sos saaga euh, léegi sama téléphone ñu baal ma xam nga dégg naa mu ne ñu bari mënuñoo liir sax li nekk ci téere bi lu ci nekk xamuñu ko dafa am ñuy ñëw rek indi leen ay wax ci biir téere bi ngay fekk ci xaaj bu njëkk ba xëtum juróom fukk ak juróom ñaar muy résumé ne bal kullu man bi imaanin wa insaafin ala masaadirihimul asi asaasiya topp ko ba yi jeexal ne euh, liy liggéeyu gaay ñi mooy li xidmati ulaika aw li ibadatihim ala al aw li mu ne képp ku yër téere tasawuf yi nga xóotal màmmal sa gis danga gis ne fondement wu cëslaayu téere waa tasawuf la ca nekk soo ko toppee mooy euh, rafaul waliyi ila maqaamil uluhiya yëkkati waliyu yëkkati waliyu teg ko palaasu yàlla mu ne mooy nekk ci téere waa tasawuf seen pas-pas yëkkati wëli teg ko palaasu yàlla wa tasxiiri naas yi ak liggéeyal ak tàggat nit ñi li xidmati ulaika aw awliya ngir ñuy liggéeyal waliyu yooyu tàggat ngir ñuy liggéeyal waliyu yooyu aw li ibadatihim wala jaamu leen alal asaxi ca la gën a wér wala sax ñuy jaamu waliyu yi waaw lii bu fekkee nekkul génne nit ñi ci lislaam mooy lan léegi ñii seen pas-pas dañuy yëkkati wali yi teg leen palaasu yàlla wala ñuy tàggat aw nit ngir ñu leen di liggéeyal wala sax ñu leen di jaamu mais mbokk yi ku jaamu nit yéefar nga génn nga ci lislaam léegi ki bind lii ci téeréem tey moom laa déglu grand théâtre mu ne dañuy wax ni dafa génne borom xam-xamu lislaam yi ci diine waaw léegi bu fekkee nga ne képp ku yër téere ànd ak maandute seen téere yi seen cosaanu téere yi la fay fekk lenn dong la mooy yëkkati wali yu teg ko palaasu yàlla tàggat nit ñi pour ñu leen di liggéeyal ak jaamu wala jaamu sëriñ soosu noonu jaamu leen lii nii ci nga xam ne nii jukki nañ ko ci sa téere mu nekk ci nga bind ko kenn sexalu la lem yow yaa ko bind beneen bi nga ñëw ci tarixa tiijaan bu weesoo génne nit ñi ci lislaam tarixa tiijaan moom saaga yi ko neex la ko saaga moo tax nee naa jàmm ji mooy xam nga man ko gëm ubbeeku laa ci benn côté awma problème bu ñu wootee gis ngeen ba tàyyi ànd sàmm jikko yi ñu woote ñun ñëpp euh, moom mu teew ñeneen ak ñeneen teew ndax damay wax ne tout le temps war nañu comprendre combat menn mbir bu ñu ci nekkee war nañ ko comprendre ba am na loo xam ne ku ne dañuy dajaloo ñu xeex benn mbir buñ paree ku ne dellu këram loolu dama ko gëm mën nañoo dajaloo waxtaan ñu bañ a dugg ci détail yu taqdiisul asxaas mais taqdiisul asxaas mënuñ koo ubbi mukk jàmm di am juboo di am ndax ay tooñ ak i sos ak i saaga moo nekk ci biir fees ci dell te lii dama bañoon wax ci ñu ne na ko génne lii benn la bu may génne am na sama benn mbokk nit ku baax ku maandu dégg naa tey rek ñu lim ko ci ñu fa teewoon jarul may tudd turam Euh, bis mos nañuy wax mu ne ma est-ce que du baax en tant que moom gëstukat su ma waxee ne taq taqdiisul asxaas dafa am lu ci ne moom ma dimbale ko indil ko ci biir téere bi loo xam ne nii lu ci nekk lu jaaduwul la ma dem indil ko téere bi bi borom téere bi jeexal fi muy résumé résumé ma indil ko paas boobu noonu leen liiral ko ko mu noppi waxatul dara mais boo toppee téere bi fi ma nekk nii rek muy fees tey ñun ñi dañuy dem di wasifa ji fii ci zawiya wax na ci biir téere bi ci xaaj bu njëkk bi xëtum ñaat di weddi bu ñuy wasifa yenent bi day teew ak xulafaawul arba dem ba ci biir ne fa in kaana maqsuuduhum bil ajsaadi falaa yartaabu ahadun fi annahu buhtaanun wala yusaddiquhu aaqilun mu ne bu fekkee dañuy wax ne yenent beeg saxaaba yi ñoom tiijaan yi dañuy teew ci seen malaan wadifa mu ne loolu amul benn sikk sàkk ne ay fen la ay sos la te nee na kenn ku am xel du ko dëggal maanaam Cheikh Alhaaji Malick mi dëggal loolu Cheikh Alhaaji Omarul Fuuti yi maam Abdoulaye Niass Cheikh Alhaaji Ibrahima Niass tiijaan yi ci àdduna bi yëpp gëm loolu pas-pas boobu noonu le amuñu xel te dañuy fen lii moom moo ko bind kenn sa xelu ko lem mu dem ba ci biir ne bu fekkee seen ruu yi sell yi nag ñooy bàyyeekoo firdawsi génnee fa ñëw teew ci seen jotaay yi euh, ngir teew xolal amaama xawmin jaahiliin yushrikuuna billaahi ñuy teew ci kanamu nit ñoo xam ne ñu réer lañu ñuy bokkaale ak yàlla ñuy bokkaale ak yàlla naka la euh, wa yastamiduuna min gayrihi ñuy tëb ci kudul yàlla mu ne boobaa laqad jitum an idda indi ngeen ñaawteef bu rëy rëy rëy rëy <laughs> waa léegi ki nga xam ne nee na tey ci grand théâtre amul kenn kum génnee ci lislaam moo taxe tiijaan yi ay bokkaalekatu yàlla taxe leen ay jaahil ñu réer maanaam ñi toog noonu naka la yonent bi mën a teewee ci seen biir ñoo xam ne nii ñu réer lañu ba noppi di bokkaale ak yàlla di tëbb ci kudul yàlla ñooñu naka la yonent bi mën a teewee ci seen biir lii nekkul loo wax ci say minbar mais da ko bind mbind maa ngi fi dañul te nii laa ko mënoon a toppee ba mu bari lool ci ay mbir yoo xam ne day tudd fen di tudd bokkaale di tudd réer di tudd aw nit ñoom dem na ba di leen di tëkkaleek ñoo xam ne nii xel nag sax a leen ëpp xel ne na xelum nag sax texte bi boo ko toppee ba ci kanam lu jege lool mi ngi wax lu mel noonu mu ne ñu mën a yegg ci niveau boo xam ne ni nag sax yàlla musal na ko mu mën a yegg ci niveau niveau boobu noonu li <laughs> lii Cheikhana docteur da nga ko bind te lii la ku mel ne yàlla na ko yàlla yërëm Cheikh Ahmed Tidiane Gaye amoon ak yow problème ba bind téere tontu la ca tey li ngay wax ne ñooy jaxasekat yi ba muy dund waxoo ko woon jaxasewulaa kenn dafa bind téere tontu la waxaatoo ca bindaatoo tontu ko mu woo la débat fa jiri ñëwoo ca débat ba ba mu génn àdduna ñemeetoo wax ci téere bi gannaaw tey kay xanaa bi nga xamee ne Sidi Lamine Niass yàlla na ko yàlla yërëm génn àdduna ki nga xam ne moom mooy Cheikh Ahmad Tidiane Gaye génn àdduna ci nga mën a ñëw ne dañu la doon jaxaseeku nit ndax lii mooy jaxaseeku nit te nag maa ngi euh, damay jàngat nii rek am lu may jukki taalibeem yi nga xam ne waxuma mbocoroo ci ci suuf di bëgg tur léeg-léeg jug naan ñu ngi may tontu mais taalibeem bu ma ci tontu ku ma xam ku ko jege danaa dem dugg ji ci taqdiisul asxaas def ci aaxiru zaman mhm. pour wan leen ne problème bi nga xam ne moom la am ak waa tasawuf li ci gën a rëy mooy taqdiisul asxaas fii fikri suufi te loolu noonu le lañ lam lam ca bind moom moo gën a xam lu tax mu bind téere bi toog lu yàgg génnewu ko xam naa ci lu bari ndax waxtaan naa ceeg ñu bari ci jamono yooyu lan moo tax téere bi génn toon ak lu tax mu génnee ko ak lan la wax ne moo tax mu génnee téere bi te xamoon na ne moom coow lii nii dana nekk ci téere bi ba tey xamoon na ko bi muy génnee téere bi mais téere bii nii moom laay déglu ci YouTube aw nit li ci def silsila ne dañuy waxtaanee li ci taqdiisul asxaas aw nit ñoo xam ne nii dañuy tudd na Cheikhana docteur Ahmad Lo hafidahullah bu ñu tuddee Serigne Touba sàllalu ko alaaj Malick sàllalu ko Cheikh Tidiane ñu wax leen lu leen neex moom bind na téere bàyyi fi waxul kenn téere bi bu ko kenn nekkati di jàngale wala di ko jàng ci seen YouTube bi day wax ne kay kiite euh, leen ci groupe yi nga xam ne nii dàgg sante fa am mais mosuma koo dégg mu ne téere bi bu leen ko jàngaleeti maanaam téere bi moom ba léegi validé na ko nangu ne téere bi daf ci indi critique gis naa benn scène buñ ko invité mu wax lu mel noonu ne téere bi ay critique moo ci nekk te moom critique du moo ko njëkkee ne Cheikh Alhaaj Mali def na critique ci Kifaayatu Raaxibiin ci tasawuf Sëriñ Tuubaa def na critique ci fa euh, ci Masaalikul Jinaan liñ ci dugal te bokk ci ñooñu dañ doon wax liñ ci dugal te bokk ci waaye yow dang ne tasawuf bokkul ci diine tasawuf nga wax ne bokkul ci diine di taksi aw nit ñu nekk ci tasawuf ay mushrikin ay bokkaalekatu yàlla salon Ahmad Lo bu ñu fiiree waxam ji mooy tiijaan yëpp safara lañ jëm loolu mooy bokkaale kuy bokkaale yàlla moom safara nga jëm léegi ñi nga xam ne ñoo toog di wasifa ay bokkaale katu yàlla waaw man naka laa mën a nangoo man nga taxe ma ma nekk benn bokkaale yàlla ba noppi nga gëmloo ma ne ma waxuma la dara lu la offensé wu ma la say taalibe ne wu ma la te man maa ngi toog yor sama kurus di wasifa am pas-pas boobu noonu léegi nga gëm loo ma ne pas-pas boobu noonu yow mushrik nga kuy bokkaale yàlla nga ku réer nga léegi ba noppi nga ne waxuma la dara loolu moom du dara yaa garaawal wax ji problème bi lii kese la moo tama ne mën nañu ub téere bi ñu jàmmoo ñu ub téere bi jàmmoo te téere bi li ko doon ub ma saa benn bi sama benn waxtaan ne na taal taq diis rek jàmmaam bu taalee taq diis rek jàmmaam lu dul loolu nag képp koo xam ne nii yaa ngi jóg di attaqué mag ñi fii ci Sénégal xoolal amul kenn koo dégg muy attaqué mag ñi di attaqué tasawuf te ñemee attaqué Ahmad Lo seen YouTube yi maa ngi abonné ci seen seen yëpp yëpp nag laa abonné di nga dégg ñu critiqué sëriñ diw sëriñ diw waaye doo leen mos a dégg ñu critiqué docteur Ahmad Lo waaw léegi kon docteur Ahmad Lo mooy seen sëriñ seen boobu duñ nangu mu ko dugal ci vidéo ku koy tontu duñ ko nangu kuy leeral lu jëm ci taqdis tooñ duñ ko nangu tout le temps ñi ngi dugal loo xam ne njàngaleem Ahmad Lo la wala kuy défendre Ahmed Lo wala kuy attaqué mag ñi te moom yëg na loolu xam na ko mi ngi liir audio ci ci téléphone am comme ni mu ko waxee tey kon vidéo yi ñuy def yëpp di attaqué mag ñi mi ngi koy gis ba tax na vidéo bi mi ngi mi ngi gudd te bëgguñu woon mu gudd lool mais ay jàngat la woon rek pour wane ne bu fekkee ne daal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la Cheikh Al Hadj Malick wooteel muy gàmm sëriñ Touba woote màggal ngir ñu sant yàlla docteur Ahmad Lo woote na bis ngir ñu ngir ñu setal ko ak wax ay jaloorem yi mu def waaye wax dëgg fa yàlla nañ continuer nag ku ne respectel sa morom bisam nag waaw ku ne na respectel moromam bisam pour jàmm am te ndaw ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci ginnaaw mbir yi di attaquer tout le temps pas-pasu nit ñi di leen taxé ay nitu bidaa te boo jàngatee tey ci biir waxam loolu dikk na ci ñun nitu ahlu sunna nun ahlu sunna <laughs> nun ahlu sunna waaw léegi xale bi bu demee sa discours boobu mu koy mu koy jàngat ñun ahlu sunna waaw léegi buñ ko laajee ñeneen ñi ñum doon mu ne mooy ahlu bida te loolu ngay dégg ci xutba yi ku mel ne Omar Sall di ko wax ahlul euh, bida ahlu ahwa terme yooyu muy utiliser ba tax na kon euh, nañu moytandiku kalimatu xaqin urida biha al baatil kàdd koo xam ne ci kaw dëgg la mais ci suuf ay neen moo ko am na yoo xam discours yi mën na rafet ci ñu jàngul ubbi wuñu téere xool li ci mais nag sama genre gi nga xam ne nii dañ nañ ci ak réer taqdisul asxaas kenn firi luñu lu ci nekk mais dañuy wax ñu dem gis gisal suñu bopp liir bu nangu woon ne téere bi nit mën na juum njuumte la ba may bind njuumte laa bindee woon nit nag bindkat du mucc ci njuumte am na loo xam ne nii ku bind ku nekk jaar nga ci nangam discours yooyu lañuy soxla ka dafa am ñu ñëw di ci cuqati loo xam ne nii dañ koy jaxasee euh, àdduna bi loolu amul Sénégal ku nekk mu ngi fi gëm lu nekk ñu respecté la la nga gëm réew moo xam ne xajoo nañ ñu gëmul suñu yënant war nañ mën a xajoo ku gëmul suñu sëriñ kon du problème mu gëmul suñu sëriñ ak daf ko weddi kese la mais problème bi mooy li ngeen nekk du dëgg liñ nekk dong ngay dëgg fekk bàyyiwu leen li ngeen nekk du ngeen di jullit lii ñu nekk dong ngay nekk pour nekk jullit ku ci dee nga ci ngay dem àjjana ku dee ci li ngeen nekk safara nga jëm problème bi foofu kese la nekk man nag du ma nangu yow nga ne boo dee àjjana nga jëm man bu ma dee safara laa jëm euh, ba noppi ma lay bàyyi ci loolu nga wéy di ko ni ba tax na ku nekk wutal sa daara utal sa juma wool sa nit sa télé ubbil sa rajo réew mi réewum liberté la ku mu neex man nga woote ca la la neex waaye nag di taxe nit ñi ay kéefër bindub téere téere bi nga taxe ci aw nit nit ñi dañuy bokkaale yàlla ñu réer lañu nag yi sax leen ëpp xel ba noppi tey nga toog ñu lay déglu ngay bëgg gëmloo nit ñi ko loolu noonu la dañ koy jukki ci téereem ngir jaxase kook nit ñi waaye amul fenn fu mu bindee di génne nit ñi ci lislaam loolu laa ne du dëgg tey du dëgg démb ba tax na ma daaneel sama kàddu di wax ne alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamee ne ñu daan wax ne nangam yenent bi defu ko woon ak saxaaba yi ñu ngi leen di déglu tey ñu wax ñu li ñu def fan la ko yenent bi defee woon ak i saxaaba di delluwaat nag di woo sama mbokki jullit ñëpp ñu wéy di am tolérance xam ne mbir yi ni ma ko waxee woon loolu laa gëm ba fii mu toll nii mooy li ñu wuute nañ ci waxtaan li ñu wuute nañ ci waxtaan li nga xam ne nii mënuñ cee wala li ñu dëppoo nañ ci ànd li ñu dëppoo nañ ci ànd ku nekk layalee li tax ngay àndal sa morom mooy jullit la ne man ñoo bokk xibla bokk téere bokk yenent moo tax may ànd ak moom nga man ko layalee loolu yi nga xam ne dañ cee wuute di ay masala ci wàllu pas-pas ak fiq ak lépp ñu bokk ci waxtaan yi ñu mënta déggoon ak ñu bàyyi ba ëllëg yomal xiyaam ñu réglé ko ci kanamu yàlla loolu dong moom mooy wax ji ala kulli xaali waaye daal jàmm mi ngi am ci wattandiku tooñ ci la jàmm di amee Euh, déglu naa Cheikh Ibrahima Khalil ci biir mu fàttali ko ci léeg yenn terme yooyu jël wooye ko nit euh, ba indi na aaya ci alquran wala tanaabadu bil alqaab wala tanaabadu bil alqaab euh, teg tag si aw nit wooye leen aw tur maanaam boo jëlee wax jooju ci waa tasawuf dañuy tuddee gars yi seen pas-pas wahabiya muy ñaawlu loolu noonu ne alxuraan def ko dénoncé léegi ëlbati waatal wax ji ñi nga xam ne ñoo tuddee seen bopp ahlu sunna waa tasawuf ñu wooye leen ahlu bida même aaya bi la ñuy utiliser waat rek wala tanabadu bil alqaab ndax dara gënu la ñaaw xam nga ki nga xam ne wooye nga ko wahabiya sax moom dangay jàpp ne ba tey jullit la waaye ki nga xam ne yaa ngi ko tuddee ahlu bida ahlu bida wa kullu bidaatin dalaala ngay jàngale wa kullu dalaalatin fi naar ku nekk ci bidaa moom dee ci safara la jëm waaw léegi loolu noonu le wala tanabadu bil alqaab fan lay dugg ba tax na kon nañu respecté wante nañ ñun ñëpp xamante nañu Sénégal lañu dëkk xamante na mbir yi li nga xam ne ni moom moo ci nekk lu ci bëri xam nanu ko lépp loo xam ne Maxtaar saa doon na ko defal sëriñam nga bañal ko ko tey yaa ngi ko nangul nit di ko ko defal suñu sëriñ si dañuy woote ñu wuyu ji leen làmb suñu poos jox leen hadiya seen bis ñu organiser leen ko ba mu jekk tey loolu doo nga xew woote na bis ñu déplacé fu ne wuyu si ko télé yi direct yi ñu def dañuy fay xaalis boobu noonu la fan la jógee bàyyeekowul ci poosam moom ñan ñoo ko dajaleel xaalis boobu noonu la day wane ne kon wala loolu dana firndeel ne ñun suñ poos yi ñoon làmm di jox sunuy sëriñ kon ñoom itamit làmm nañ poos ngir seen cheikh noonu nga koy toppee ba mu baree baree baree bari kon moo tax ma ne xamante nanu nañu respecté wanti loolu doo nga ci nekk nañu respecté wante nañu respecté wante loolu rek a ci nekk mënoo dëkk nag di attaqué pas-pasu nit ñi ci bind aw nit jël lool noonu la di ko véhiculer di ko jàllale koo ci déglu mu def émission balaa jeex belese la ci sa pas ku ciy xutba belese la ci sa pas ba noppi aw ndaw jël loolu noonu la ñoom ci beneen formule tuddee ko euh, dund sunna xeex bidaa di attaqué nit ñi ba noppi nga ëlbatikuwaat bëgg woo nit ñi ci dal bëgg woo nit ñi ci jàmm bëgg woo nit ñi ci wane ne yow amul kenn koo tooñ loolu noonu leen du jàll fitna li ko fi jëlee mooy bàyyi tooñ mais fekk tooñ a ngi am jàmm du am fekk tooñ a ngi am jàmm du am lenn dong mooy am mooy bàyyi tooñ pour jàmm mën kon loolu lañ doon jàngat li ci des nag incha allah danañ koo topp bu ñu ñibbisee Sénégal aywa taqdisul asxaas bu fekkee ne téere bi aayul gis naa bi mu jeexalee mbokk mi résumé ne téere bi xam a ci nekk wax ci li mu ci wax man ma ne téere bi ay sos a ci nekk ay nara ci nekk ay tooña ci nekk moo ci fees den sos nar tooñ moo fees dell ci téere bi ku ko weddi nag ne loolu nekkul ci téere bi aywa bismillah ñu dem ci ñu aaxiru zamaan ci ba ñu debaa ci ba ñu debaa ci ci plateau télévisé ba tey pare naa ci incha allah ngir loolu kon taqdisul asxaas téere bu bon la boo xam ne nii buy tooñ la dañ koy jël ñu jël ko gas ko ba mu xóot ñu suul ko jàmm am waaye fekk téere bi ñu ngi koy jàmm jàngale ci Sénégal juboo du am jàmm du am ci jullit ñi ala kulli waaye jàmm ak juboo mi ngi amee ci jël taqdisul asxaas taal ko jël taqdisul asxaas suul ko ñu seet nag leneen lu mu bindaat après loo xam ne nii njëriñ a ca jullit ñi mën ko jëriñoo waaye taqdis moom tooñ waa tasawuf sosal waa tasawuf waxal leen lu dul dëgg falsifier seeni wax wax ju nuy wax mu war a leeral Euh, fi mu jëm mu jël wax ja dagg ko lu mel ne nga ñëw ci alxuraan fekk ca fa waylun lil musallin alladina man salatihim saahun nga ñëw jël fa waylun lil musallin yam ca def ay point def ay ay point daal di commentaire nag fa waylun lil musallin loolu moo nekk ci taqdisul asxaas fees ci dell day ñëw ci jawahirul maani Cheikh Ahmad Tidiane wax dara mu jël wax ja tàmbali wax ji ba mu yàgg muy def ay point bu paree nag def commentaire am bu bon jëmale ko ci loolu yooyu noonu lee du jur jàmm fi may daanelee benn baat dégg naa ko mu neex ma lool ci wax ji mooy Serigne Touba alxuraan ak sunna la doon jàngale <laughs> kon alhamdulilahi rabbil alamin waa kon ñu ngi ci alxuraan ak ndax Serigne Touba kilifa ak tasawuf la ci nekk ci tasawuf la nekk ba génn àdduna kon moom tey bu ñëwee nangul ne Serigne Touba alxuraan ak sunna la nekkoon loolu dajji na téere bi dajji na seen pas-pas dajji na seen discours yu bari yu ñuy wax ndax ñoom dañoo gëm ne waa tasawuf nekkuñ ci alxuraan ak sunna buñ ko waxee buñ ko waxul dañ ko bind dañ ko bind kon bu amee benn kilifa ci waa tasawuf kum nangu ne kooku alal kitaabi wa sunna la doon jàngale ba génn àdduna ah kon alhamdulilahi rabbil alamin loolu daal neex na ma lool ci biir discours bi tey bi mu ko déggee ne waa tasawuf ñu ngi ci alxuraan ak sunna kon gannaaw loolu la war ngeen bàyyi murit bi mu nekk murit te tënk ko ci alxuraan ak sunna ngeen bàyyi tiijaan bi mu nekk tiijaan tënk ci alqur alquran ak sunna bàyyi xaadir bi nekk xaadir tënku ci alxuraan ak sunna ngeen bañ ne ko mënoo nekk ci alxuraan ak sunna te doon murit ak tiijaan faaw nga ñëw ci nun bokk ci suñu kër kuréel pour mën a dund alquran ak sunna su wax ji leeree ne sëriñ tubaa alal kitaabi wa sunna kon bàyyi leen taalibi sëriñ yi ngeen di def taalibi bàyyi leen taalibi sëriñ tubaa yi ngeen di def taalibi te bàyyi leen ñoom ngeen jàngal leen alquran ak sunna ñu wéy di dem màggaleeg di seeti seeni sëriñ si di leen jox hadiya te nekk di dund alxuraan ak sunna waaye daal balaa ngaa dund alxuraan ak sunna faaw nga bàyyi sama sëriñ sa sëriñ ñëw ma doon sa sëriñ nga may jox hadiya su ma wootee nga wuy si ma léegi daal ci ngay tënku ci alxuraan ak sunna ay waay sàmb sëriñ seex dafa waxoon ni ñàkk fayda weesuwul nga nangu sa mbokk taalibi def la taalibi mu ne ñàkk fayda weesuwu ko te loolu dong la man bi kaay ma def la taalibi du leneen du leneen bañ a doon taalibe tey nga xëy nangoo doon cheikh pour gars yi topp la loolu dong la du leneen ku ci nekk yaa ngi samp sa bopp ñu tuddee la cheikh may leen suyuux yi fi teew sëriñ si suyuux mooy sëriñ sëriñ si maanaam tey seen sëriñ si sëriñ si <laughs> sëriñ si ñoom dañuy ay doomu yenent wala ñuy ay sëtu yenent wala ñuy ay saxaab ay sëriñ lañ am mbooloo yu leen topp nga nangu ko yow ci sa kuréel waaye nag beneen kuréel bi moom da nga leen koy bañal aaday maam ya diine maam ya topp maam yàlla toppaloowuñu bàyyu kenn ak maamu kenn waaye daal tey moom nañ topp bàyyu kenn force ak maamu kenn force ay waay sàmb ay waay sàmb atamuruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab afala taaqiluun afala taaqiluun kuy digle sangu day fekk nga jiitu ca aywa kon bàyyi leen ñoo sunu pas-pas ngeen respecteel nu ko ñu bàyyi leen ak seen pas-pas respecteel leen ko jàmm na ñooy lu ko mooy woote jàmm téeméeri yoon te agression yi di wéy ci réseau sociaux yi ci pas-pasu nit ñi di wéy ci xutba yi ci pas-pasu nit ñi di wéy ci émission yi di pas-pasu nit ñi jàmm du masa am ala kulli xaali du masa am ndax man du ma nangu nga tag sama nitu bidaa tag sama bokkaalikatu yàlla ma toog yow bàyyi la ci li nga nekk te waxuma la sa baaxu maam du ma ko nangu dama lay wax sa baaxu maam wax la yow yaay kan ala kulli xaali soo ma bàyyee attaque sama pas-pas nag ma bàyyi la ñu jàll ci l'essentiel yi te l'essentiel yi mooy li ànd sàmm jikko yi woote nañu xeex yu bon yi fi dugg ngóor jigéen ji faraamason maçon yi yi agressé sunu diine yooyu mooy l'essentiel fi mbir yi toll tey ci àdduna bi loolu la ñëpp war a concentré te ñun ci loolu lañ nekk yu ci bari démb daan naa ko baril sax ci attaques yi ak ci radd yi mais dama koy mujj wàññi yu baree bari ndax l'essentiel yi ma xam ko priorité yi ma xam ko waaye nag du tee sama pas-pas ba tey damay woy di ko defendre de damay wéy di ko defendre gëm ne li ma nekk alal kitaabi wa sunna samay kilifa alal kitaabi wa sunna ma di ko défendre xam naa yow sunna si nga may woo fan la juddoo ak ñan ñoo ko jur ak ñan ñoo jug tey ngir rey sunna si nga xam ne ñoom ñoo ko wasi noonu ñooñu xam naa leen bu baax maktab laa yor boo xam ne parti bu rëy téere yooyu dong nga ci fees te sob naa ci nag sob naa ci gëstu naa ci lu baree bari ba tax na su ma gisoon ne pas-pas boobu mooy dëgg bàyyi naa li ma nekk bu yàgg fekki ko <laughs> kon nañu respecté wante loolu donc moom mooy wax ji mooy résumé lépp waaw mooy résumé lépp munu may woote sama bis nga def ko bisu bii daa di woote sa bis def ko bisu sunna munu ma am sëriñ nga ne ma waroo ko am yàllaa ko yonentam nga mën a topp war a topp ba noppi yow am sëriñ ne moom lañ war a topp te yow kenn du la ci wax dara yow daal lu baax mooy li nga baaxal loo baaxalu lu bon la soo amee sëriñ baax na bu ko keneen amee bon na boo wootee bis baax na bu ko keneen wootee bon na loolu noonu le dafa war a dàkk lu ko mooy rek euh, ñi ngeen di woote ci jàmm mënula am ala kulli di woy nag di respecté képp ku gëm li mu gëm da ngay dund sunna respecteel ma li ma gëm respecteel ma samay kilifa maa ngi woy di la respecté te ñoo ñu xam naa ci ñu baree baree bari bari na ñoo xam ne ñu ngi woote woone dañuy dund alxuraan ak sunna nekk ay nit ñu sell nit ñu yaru nit ñu yiw ma respecté leen ko lool duma mos a dégg ñu agressé kàddu wala ñu gaaruwaale ma respecté leen ko mais nag beneen côté bi nga xam ne nii moom laay tuddee wahabiye yi ci yenn attaques yi ci yenn gaaruwaale yi kàddu goo yëkkati aaye boo yëkkati mu xam fi mu jëm te léeg-léeg yow ki ngay tag sa nitu bidaa yow la Abdullah ibnu Mas'ud ne wala Abdullah ibnu Omar ne nitu bidaa nga yow yow moomu ndax ne ne nitu bidaa yi euh, dañoo jël aay yi nga xam ne moo wàccoon ci yéefar yi ñu koy jëmalee ci jullit ñi te loolu lu ci bari moom mooy feeñ ci seen discours aay yu bari yoo xam ne nii yéefar yi la ko yàlla jëmale woon ci ñoom aay yooyu lañu jël di ko jëmalee ci jullit ñi te loolu noonu le mooy màndarga nit bi daay dëgg yooyu yëpp mi ngi fi ñu ñu noppi waxuñu ko laa kulli xaal kon bu ñu amee benn tolérance bi ci yenn côté am leen ko te yar ci seen njaboot gi mbojoroo ci ci suuf nga xam ne fu nu jógee di attaquer nit ñi ci seen i pas-pas di attaquer nit ñi di ko def ay tariixa bida te yow nga nekk ci tariixa yooyu noonu le dafa war a dakk gannaaw nag daje tey bi am na alhamdulilah xëy na yooyu yëpp dana dakk xëy na yooyu yëpp dana dakk bu dakkee baax na waaye bu dakkul ah wa in taudu rek naawut di leen sant di leen gërëm di jéggalu ci kàddu yi seen mbokk Makhtar Sarr wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.